ànd ak ak yéen ba ndar dem da dem sànnuusi fa mu fa mu fa mu fa mu waree fa mu woore woon ba naan siwaakum tënte niiraanu yowmal qiyaamati kazal xusraan toppaat ko ba nga xam ni ba ko tubaab yi di jëlewaat der eh, après l'exil ci Daaru Salaam pour mu dem gànnaar wax leen bu beneen yoon ma wax leen nombre tirailleurs yaka andi woon ak quartier ga ñaata la ñu woon lu mu doon dundee sax dinaa leen ko wax ndax recherche bi egg na ci mu topp ko ànd ak moom ba mu delluwaat ndar dugg gànnaar xomaak jëraar yi tuntumor din sarsaar temerka yi topp topp ko ba ba mu egg sarsaar ba xam ni wasu xam ni wa sukri liman kulli bi saara la wari dan duna suqi inda ba balaa ma wax inna allazina ila sabtaara qad qasadu ziyaaratin faaraqu daarayni usa du ma leen bàyyi di ko topp ba dem biirul xayri teen boobu ñuy wax jëraar yi foofu sëriñ bi bind woon qad jaani suula min rabbi bi takraaru la siyama inda biiril xayri jaraaru loo sukuri la dul xurri qad intasabu ila aliyin dëgg-dëgg kii mooy waaj waaye li ma leen li ma fi may gàtt lépp dugg si waxtaan wi tàmbalee bu ma waxtaan fi may duggee si biir waxtaan wi euh, benn tubaab ña- ñetti tubaab kenn ki mi ngi tudd Fernand Keno kenn ki tudd Paul Marty ñetteel ba tudd Fernand Dumont mi ngi mi ngi nekk léegi ci Sénégal conseiller technique la fii ci réew mi Fernand Keno ak Fernandinho ñoom ñaar dañu di dañu Fernandinho nag dañu bindoon ay téere enquête kër sëriñ si yëpp kër sëriñ bu nekk ñu dem sa enquête leen ba nu bindee ba xam ni sëriñ tubaay waaja ñu jël defar ay téere téere yoo xam ni dañu kaa jaay nit ñi di ko jàng nit ñooñu di ko jàng pour dëpp leen ci sëriñ Touba. waaye nag si suuf ñu bind téere yu wér yoo xam ne dëgg-dëgg lañu gis ci Sëriñ Tuubaa moo sa nekk mu bind ko envoyé ko ku ñu wax Louis Le Châtelet mu nga nekkoon France jamono yooyu ñooñu dañ daan jàngal administrateur de la forme maanaam commandant yooyu daan ñëw fii di yilif réew mi ñu wax leen nag dëgg dëgg Sëriñ Tuubaa xam nga lu Fernand di ma wax dafa ni dëgg dëgg dëgg ñi ko gën bañ enquête naa si ñi gën bañ Xaadimu Rasuul si jamono duma leen ko wax nee na enquête naa ci ñi ko gën bañ ñooñee ku ma kasi laaj ñu ni wali yu desewul benn guddi la noonam yaa ko seede loolu loolu la tubaab ba wax ci fas waaye teewul tubaab ak bari politique sa kaw nag mu bind téere pour séddali ko ciib ciib yi jàng tuuti tubaab ni leen nag sëriñ tubaab diineen gi euh, vagabondage islamique rek la du dara dëppwul ci charia du dara Fernand Queneau itam mbokk ma wax loolu fi leen yàlla àttee Fernandino mii ci réew mi yàlla fiir ko si mu liir trente mille vers ci bindu Xaadimu Rasuul suma sëriñ yu bare te gisu ci dara trente mille vers ci bindu Xaadimu Rasuul fanweeri junne yi bayit fanweeri junne yi bayit yooyu mu ngi leen di liir ci sept mille heures juróom-ñaari junne waxtu defal livre am boobu la pensée euh, religieuse de Ahmadou Bamba dal di ni kii daal jéggi na dayo si ilmu ilmul shariatu mal xaqiqatu dépassé na mutaqaddimina yi ñu jëkk ña dépassé na leen te du naw la ñii ci nekk ba mu demee sa UNESCO ma dal di génne ñetti kàddu yooyu xam nga ñaar ñee safaanoo ak ku ñett ki ma ni leen ñaar ñële dañu waxoon lii kii fi nekk léegi liir trente mille vers ak sept mille heures mu def ko si mbiru xadimu rasul lii la wax waaw safaanoo wax bii daal am na xalaat bi moo dugal suñu xalaat bi moo di moom fan la dëgg nekk man mani dëgg bu ñu ko wut ci ñooñee man maa tontoo loole ci communication bi ma doon def ci UNESCO ñu leen dëgg bu ñu ko wut ci ñooñee wolof njaay dafa ni boo dee laaj mbiru jën nan la jën yi dëkke da nga kaa laaj dex ga wala géej ga waaye bul fekk daay ga wala àll ba nga kaa laaj ma ni nag nanu ko laaj dex géej géej gi ñan mooy dex géej géej gi mooy ñu baax ñooñee askanoo si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te sëñ Tuubaa fekkoon leen gànnaar diggante 1903 ak 1907 ku demee ne Cheikh Saadu Abi wala Cheikh Sidiya wala Cheikh Abdallahi Tandaxi Cheikh Abdallahi Tandaxi yi dafa ni Cheikh Ahmad Bamba di xool Cheikh Ahmad Bamba si gànnaaw xool ko ba yàgg mat ga ak mën ga ak yiw ga ak sell ga ak sukkandiku si sunna rasulillah ak tawxiid ga ak sariya ga ak xaqiqatu ga ak yërmande ga ak laa biir ga jéggi gis ko si benn doomu aadama xadimu rasul jaaxal ka di ko jaaxal ba yàgg Abdallah ni ko daal jaaxalatoo ma jaaxaloon nga ma waaye léegi jaaxalatoo ma ñu ne ko lu ñu ni ko lu mu ni ko layin fuqta kull al awliya mutaaxirat fa xayril baraaya fil quruni al awaaxir yow boo mujjee feeñ nitu yàlla yépp te gën leen xam naa na lu tax nga gën leen yonent bi dafa mujj feeñ yonent yi te gën leen ñooñee ñoo man seede xadimu rasul ma dellu si nag si ndaw bi Sëriñ Tuubaa ñëwee dafa ñëw jamono pour ma mën leen wax lan mooy ndaw ak palaasu ndaw ak cëru ndaw si yoonu Cheikh Ahmadou Bamba danaa leen wax sax lan mooy ndaw ndaw Sëriñ Tuubaa moom nag ku tuuti ak walla ku tuuti tànk la daan am waaye ndaw mosu ko am tuut tànk rek la Sëriñ Tuubaa di am waaye mosul am ndaw ndaw tigi tigi tigi tigi moo di ku néew at am doole manque expérience mag moo di ku bare at yàgg fekke xam xàmmee xaleel mooy ku xër am doole te xel ma matagul waaye itam kan mooy mag kan mooy xaleel xaleel moo di li am doole tey yokku mag moo di lu néew doole tey wàññiku xaleel moo di li am doole tey yokku xale bés bu nekk dooleem day yokku xel ma di yokku man nga di yokku expérience di yokku mag bés bu nekk dara wàññiku si moom ñu sax bopp tey nit nee nañu mag daal moom jant buy soola jantu tàkkusaan la ku soo mu soo ku soowu lu sëriñ Tuubaa la yàlla cërale yàlla moo ko wax ni danaa yëkkati sa mbir ba ko yàlla di wutal nit fekk lu rëy te yokk mu jox ko ko muy gone yi moo tax tippatiku jot na ndax lu rëy te di yokku ak lu tuuti tey wàññiku loolu metti na xol lool wax dëgg yàlla ñun nag ñoo cëroo li rëy tey yokku sëñ Tuubaa la yàlla cërale lu rëy tey yokku xaw ma nag ña la cëroo li néew tey wàññiku li rëy tey yokku nag li rëy tey yokku mooy gone yi gone gi dafa am jabar am doon mu ngaa yokk mag mi moom bés bu nekk si di dagg ci moom bés bu nekk mu néew doole loolu moo tax ñun mu murit war nañu sant Sëriñ Tuubaa te am teggin te am teggin ci ñuy jur gone yooyee ma ni war nañu Sëriñ Tuubaa te ormal jur gone yooyu ndax boo amee sa ganaar nen bu mu leen nga woon ni ko war na ñaan yàlla ganaar gi gudd fan te yàgg bi lool te bar te man jur la kenn nit ki su fekkente ni dafa baax di la jural bu dee nit mu lay jural ay dongo bu dee ganaar di la di la nenal yow war nga da nga jéggi dayo si dof su dee ganaar gi sax boo ko amee mu toog ba yàgg di jéñ di jéñ ci da nga war kontaan ndax léegi mu nen léegi mu nen ki leen xam ni itam daf laa yokkal ki nga xam ne daf laa yokkal dafaa yokk say taalibe bu takkee jabar da nga war kontaan ndax léegi mu am doom te amee doom yow nga jël sa itte mooy jël ñooñee gannaaw nag gaa gannaaw ganaar yaa ngi leen ñuy won ni yaa ngi am doom ñuy def suñuy taalibe léegi nag danoo danoo nen beeg doom yi ak taalibe yi la noo wax lan la borom karbati nawet yi wàllu malaaki si noor digal di lan la leen digal sëriñ tubaa dafa ñëw jamono bi sëriñ tubaa ñëwee jamono dafa fekkoon bu mu ay mag dee wax xaleel nekk fa ñun ko génnal ba nu waxtaan bu baax ma ne gaañi adee sëriñ tubaa la bi nga xamee ne waaye waaye toog kenn ku ne la muy joxe na ko jot. bi nga xam ne Sëñ Tuubaa lay jëy bu kenn jóg na. lu yàgg ne boobu bi moo ñëw jamono dinaa leen wax fan la fekkoon ndaw ñi. fan la jële ndaw ñi ak fan la leen jëme ndax bala ngaa xam ndaw ak cëru ndaw si mouridisme il faut nga man ràññee fan la Cheikh Ahmadou Bamba fekkoon ndaw ñi ban statut ban situation moo doon situation wu jeunesse bi jamono yi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwee jamono ak itam béréb bu dul bérébu Serigne Touba fa sa ndaw placé xale yi sociologue yëpp xam-xam yëpp. yi nga xam ne gëstu nañu ci réew mi yéen jeunesse bi borom yi xam-xam yi nga xam ne gëstu nañu ci réew mi seet ay kuréel ay structure sociale maanaam tëralinu jamono tëralinu àddina ni àddina tëraloo ci suñu réew gisoon nañu ni ndaw daanaka lu tumuranke la woon waxtaan wu am fulla bu ko mag ña daan diisoo danoo xool geestu bu nu gisee gone ni ko jógal ba nu waxtaan ba pare moo gone googoo nan la nan lay xàmmee dama ni ba sëriñ Touba ñëwagul wala ña sëriñ Touba boo demee ci seeni mbooloo bu ñu dee waxtaan waxtaan wu fullawu te yeete waxtaan woo xam ne xel ak xalaat mën na ci génn danoo seetante ba gis xale ya ni xale bi abal nu ba nu waxtaan ba pare xale boobu nan lay amee xel lépp lu mos am fulla fu nu kaa waxe wala fu nu koy lijjantee dañ daan dàq gone ya amoon na sax si demalee fekkale wala ay boroomi xam-xam yu daan naan dëkk yu bare yu mel la ndar ak yooyu daan naa dégg bu fa nit dee jaamu yàlla sax di gone ñu ni ko léegi nga dee bu mu dekkee si ndab sax lekk bu neex di lekk bu xale ba bëggee laal rënd ba sax ñu ne ko yaa teggi ndawal xaleel daal nekk aji tumuranke xaleel nekk koo xam ni kenn jox ko fulla xaleel nekk koo xam ni kenn faydaan ko xaleel nekk koo xam ne fo rek lañ ko cëralee xaleel nekk koo xam ni caaxaan rek moom moo doon wàllam ci société sëriñ yee ko bare woon waaye jaamu yàlla bu wér sax boo ko bëggee def ñun la négal ba màgg da daan gis xaleel bu am fanweeri at dem ci sëriñ wax ko dara bu ñu ko négal ba màgg moo xale boobu kañ lay màgg di xadimu rasul ñëwee kooku mooy libérateur de la jeunesse kooku mooy sauver la jeunesse la xalimaam jëkk yuut sëriñ Tuubaa la xalimaam jëkk yuut ci xale yi la ko jëmale xalimaam la mu jëkk yuut ci xale yi la ko jëmale loolu moo tax tey jii bu xale yëpp dawee wuti ko dëgg dëgg dëgg danoo fay naar ba xoromam Sëriñ Tuubaa bu mu ñëwee suuseem bi gënoon rëy moo di situation boobu mu fekkoon gone yi Sëriñ Tuubaa bëgg d'abord niteel gone libere gone yi sala daal di defaree tasawudu sixaar jësbatu sixaar mu la yunu sudur mu eh, na wiru sudur eh, na nax ju qadaayil xaaj sala daal di defaree eh, jawaru nafis jaalibatul buruur jaalibatu saada sa waxtu ndawam booba sàkkat fukki at ak juróom-ñaar sax amagu ko moom xadima gone ndax laa wax ni précocité jeune Serigne Touba avant 1883 fekk na déjà téere ñu kaa jàngale si daara Maam Mor Anta Sali itéem bi gënoon rëy moom Xaadimu Rasuul moo doon jëkk libéré ndaw mu libéré ndaw ñi loolee moo tax bëggul kenn mu wax dara ndaw dal di xam ni sans formation ndaw mooy yaakaaru réew ndaw mooy taaru réew ndaw mooy sabu réew suñ ba seet li nga xam ni ni ma leen ko waxoon léegi day yokk di day yokk day dafa am doole tey yokk suñ tubaab defar loolu pour defar réew muy ndaw daal di defar loolu muy ndaw te leen nag léegi lu jiitu ngeen daw yéen ndaw tëngeen wuti Serigne Touba amoon na at yële yoo xam ni daawoon naa fi ñëw li ma fi daan fekk laax dansan te dansan sa at yooyee sa jamono yooyee am na ñu ni ñu ñoo xam ni nee na nooy dañu laa biir ci yéen ba di jooy fi ngeen daw jëm fa ñoo ñoo ngi fi woon te ba ngeen di laax dansan bi te dansan waxuñu leen woon dara xam ngeen ni kon ñooñu ñoo leen bañ koo xam ne bi ngaa def lu bon waxu la dara nga daw wuti jiw nu rasulillah yi bëgg ni nanu jàpp xale loolu laa bëgg ngeen bàyyi ci seen xel bi ngeen ubbee night club yi fees del ñii di matti si dem ñii di tox asis ak yamba boobu saa ñii di wax ni dañu laa biir si yéen ñu ngi fi woon waaye dañu dëggoon bal bi waxuñu leen woon dara léegi nag bi ngeen dawee wëlbati ko wuti xatti yóbbi xaadimu rasul bi ngeen dawee wuti ki dawoon wuti yàlla bi ngeen dawee wuti ki dawoon wuti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nanu jàpp gaal xale yi xale yi léegi question boobu laa leen di posé delloo ko si yéen ki nga xam ne bi maa def lu bon dafa ni woon yàgg mel na gisuma ba ma daw wuti ki nga xam ni nee na fa laahu yansuru nii wal xalqu tatba'u nii fil barri wal baxri zaana fil bilaa darari ki nga xam ni nee na yàlla moo ma taxawal dimbali ma wal xalqu nit ñi tatba'u nii daan ma topp fil barri jóge ci jiiri ji wal baxri jóge walla géej daan na fi may borom jëriñee bilaa darari te duma lor kenn nee na kookee nga xam ni za nafin bila du loolu kenn boroomu njariñ la bi ngeen dawee jëm kooku problème bi foofu la situé war ngeen xool xalaat war ngeen xalaataat loolu ndax ki nga xam ne bi ma nekkee di def lu bon di yàq di yàq jamono di yàq sama bopp waxuma dara ba ma daw wuti ki nga xam ni mooy jàpp ñibbi ku ko xam mucc ku ko xam rëcc nga xam ni nee na akram rabbi kullu man taalaqa bi yàlla tere na képp ko aju si man nga xam ne nee na ku jàpp rëcc nga ki nga xam ne nee na ñëpp si man loon jàpp jinne yi sax si man lañu jàpp yaa taaliqa alladina aslamu min jinni asrin doona man la yaslamu nee na aju na si man gaa nga xam ne jébbalu nañu si jinne yi sama jabo kookee dëgg dëgg dëgg dëgg man daal jàpp leen xale yi d'accord ci li ma d'accord man moo di waaw góor xale yi déglu leen nag te xerawlu ki ngeen daw jëm ci moom mooy Xaadimu Rasuul loolee bu mu ko waxoon daanu xam ne ñoom ñu jubloon ma ni loolee bu nu ko waxoon daanu xam ne ñu jubloon bu ne ne woon xale yi Sëriñ tubaab mais ngeen daw jublu ko de Sëriñ Tuubaa day ku baax na ku sell la na ngeen góorgóorlu di jëfe waxam di ko jàpp xale bi dana xam ni kon kii yéene na ko lu baax jàpp ko bu dëgër te wax nga def ko lu mu la tere nga bàyyi waxtaan nag yooyu ay parenthèse la yoo xam ni ak intoxication bi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko jëmale ci ñoom waaye sax ku daw jëm si sëñ Tuubaa rëcc nga dara mënatu la xol bu sëriñ Tuubaa ñëw lu mu la wax sax dañ laa gën soñ dañ laa gën soñ kon bon li war si ñun moo di ñu delloo leen waxoon naa leen ci sëriñ Tuubaa tegoon ndaw ba mu nekkee sa njaarim wala mu nekk sa xomaat ñu baax ñoo ñëw tànnoon tudde leen ëhlul baraat ñi nekk sa baraagam bu tedd boobu di bind alquran ay gone rek la fa dencoon ku deme na sëñ Masamba di sa jéeri ku deme na Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dadami ku demee na Bassirou Cissé ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen diggante fukki at ak juróom-ñett ak ñaar fukki at ak juróom rek fees dell alxuraan kookee moo respecté woon la Sëñ Tuubaa nag li mu wax ndaw yi bare na danaa leen am na benn ndaw bu mos ñëw si moom jóge si banu deymaan ziyaare si xadimu rasul ba di ñibbi Sëñ Tuubaa dénku ko dénku ko ko dinaa leen ko mosal Sëñ Tuubaa wax na ko ci ndaw yi daf ko ni alayka yaa muxtaaru bi ijtihaadi fi kulli saatin ala rashadi dénk naa la yow muxtaar wala za dénk naa la yow gone gi ci farlu ci waxtu alal rachad di sim njub gone Sëriñ Tuuba dafa war farlu ci bépp waxtu ci sàkku njub Sëriñ Tuuba ni ko walaazima taqwa warum taallama wala tukassir layban fatandama ni ko walazima taqwa na nga sàkkoo taqoo ragal yàlla te na daw di yokk xam-xam wala tukasar layban bul bare sappo fatam damaa kon da nga rëcc ñun la ko boole ñun ñëw ñu ne ko xam-xam na nga xam-xam Sëriñ Tuubaa ni falil ma yuxyi qalba man taallama yu nawiru nafsi yaqiya zulama xam-xam dana dundal xol ki xam ne moom dana leeral dana sellal bakkanam dana sellal ruwam yaqiya zulama te dana ko ci tooñ suñ tubaab ni fa saariu lil ilmi ajmaina li wajjizil jalali qasidina fa saariu daw leen ñi ndaw ñi lil ilma ngir wuti xam-xam ajma ina boole seen yéen ñëpp daw leen wuti xam-xam te xam-xam boobu nag jublu leen ci yàlla rek xamlu leen ka ngir yàlla jëfe leen ka bu ngeen ko xamee Sëñ Tuubaa ni Muxtaar sabran jamilan laa takun kasula inna alkasula laa yasuudul jiila ne ko sabran jamilan muñal muñ gu rafet yow ndaw bi muñ gu rafet moo di boo nekkee ci liggéey di liggéey yokkoo boo muñal rek xam ni boo muñee te nangu sonn da booy jigéen nekk ci sëy baax lee boo muñal rek boo muñee rek xéewal dana la fa fekk suñ tubaab nee nag sabran jamilan na nga muñ muñ gu rafet muñ gu rafet mooy muñ gu àndul ak jàmbat suñ tubaa ne laa tëkkun kasuula bul yokkat bul ŋàlli suñ tubaa ne innal kasuula aji yokkat aji ŋàlli laa yusuudul diina du sang maasa moom boo dawee wuti xaddim rasul ñu naan perte nga yàqule nga wéyal ci ndigal bàyyi tere rek te muñ xam ne ku yàlla nga yow suñ tubaa ne ko wala tusaahib xayra man yursiduka wa naan kullu saaxibin yuhlikuka ni ko bul àndandoog nag choisiral tànnal say àndandoo wala tu saaxib xayra man yursiduka bul àndandoog ku la dul jubal wa naahi kulla saaxibin yuhlikuka dana suñ tubaa ni na nga daw bépp àndandoo bu laa alal àndandoo bi lay alal mooy kan àndandoo bi nga xam ni da ngay laa yóbbu si loo xam ni sa njariñ nekk daf laa dugal si lu bon wala mu laa génne si lu baax suñ tubaa nee na wala tusaahib xayra man yufsiduka bul àndandoo ku la dul jubal bu wanaax yi dawal bàyyi kulla saahibin bépp àndandoo yuxlikuka bu laa ala ñu ni ko ah lu tax mu ni is rubba xumrin qad qadaa nabila bi subhatin saalihin la tamila wa rubba saalihin qadaa zalila bi subhati laqmaaqi zarjaula mu ne isru boobu mu ne bare na ku xelu lool mujj dem ba nekk ku ñàkk solo taxoo ku sàggan rek a ka jóge bare na ku ñàkkoon solo lool mujj dem ba jéggi dayoo ci baax taxoo ku baax rek moo ko ko waral ci ndoxani kun mutawakkilan ala rahmani fi kulli waxtin yaa fataat day ni kan na nga nekk nag di wakkilu ci yàlla ci bépp waxtu yow ak cam yi nga xam ne yaa ngi aska doon ci day na Sëriñ moo tax war na noo góorgóorlu Sëriñ Tuubaa ne na nanu xeex ak sunu bakkan ñu ndaw ñi wa laazimu man laa yazaalu abida li rabbi ilal udaa qaida wa kullu man baadara waxta sigari ila alhuda stara waxta alkibari nee na képp nee na nanu taqoo si àndandoo bi ma doon wax Sëñ Tuubaa ne képp koo xam ni gaawe na daw si jub sa waxtu ndawam dana noppalu bu demee ba mu ma nee na képp koo xam ni nag dab dabaatal nga la nga faatoon sik mbóore lab dundal waxtu ya si tuub gu sell ànd ak jublu sa boroom nee na de kon da nga texe sama tub tur googu nga Sëñ Tuubaa nee na képp koo xam ni nee na fal ilmu wal amalu jawaraani li xayri daare ni yejlubaani nee na xam-xam ak jëfe xam-xam ba ñaari wurusu jëw ër lanu yoo xam ne danoo ñoddi seen aji xam si yëmaleen si ñaari yiwu yiwu ñaari kër kon xam-xam fondement la boo xam ni Serigne tubaa daf ko jiital bés boo xamee ni ndaw li daw na wuti Serigne Touba rek itteem ba ko tubaa Touba jëkk wax moo di mu jéem sàkku xam-xam bu nu nee nag sàkku xam-xam gone nga defa ni mooy bokk sa téere seeti ustaas yi xam-xam limaamul Ghazali dafa ni xam-xam si ñaari baat rek la tënku lii li mu doon ñu ni la lii la xam-xam ñaari baat rek a tënk lii lan la ñu ni la lii la loolee mën nga téye sa téere dem si sëriñ bi ko lii lan la mu ni la lii la wala nga gàtt gàmb ngàbb sa lamin dem sa aji xam ja ko lii lan la mu ni la lii la su la ko waxee nga dégg ko yàgg ci ñu ko jàngal mu xam ko yéen a yem mu wax la ko si turk wala anglais wala tubaab moo ki mu ko wax si arab wala si arab wala chinois ñoo yem li am solo rek xam-xam bi na dugg te bu duggee noonu ko dundal dundal gi mooy jëfe bi Sëriñ Tuubaa itam wax na ni itam xam-xam googee mooy dundal xolu taalibe xam-xam nag mënuloo kaa am Sëriñ Tuubaa dafa ni sa naajul xadaayil xaalis ni xam-xamu xaleel wuti xam-xam sa waxtu ndaw Sëñ Tuubaa nee na tagg nanu xam-xam bu nit am si waxtu ndawam mu mel na xam-xam sàkku xam-xam sa waxtu ndaw Sëriñ Tuubaa nee mi ngi mel na ku fekk xeer nga bind si kawam du dañ mukk nekk ba màggat ba si dit di dagg ci yow ngay sàkku xam-xam mi ngi mel na bind si kaw ndox bu tegee bu yàggee sa kay bind la bu tegee loxoom bind ba foofu ndax Sëñ Tuubaa daal di xam ni wax na nu leeral na nu bu baax xam-xam ndaw li itam dafa war xam waleeru jamono Sëñ Tuubaa dafa ni waar rabu la saayili lamwaati raddun ila dunia maa la xayaati nee na kaddee léegi la mu gën xemmem moo di ñu dellu si ko si àddina ànd ak dund wala suwayatin donte benn saala ni ko lu tax mu ni li anna kullu nafasin min rajulin jawharatan nafisatan la tanjib mu ni yéen ndaw ñi xam leen ni noogu ngeen nooy yëre buus bu jëwar bu for la si yàlla Sëriñ Tuubaa moom si xelam ak pensée yi doon naan time is money anglais yi doon naan tàng xaalis la Sëriñ Tuubaa nee na tàng dépassé na xaalis noogu nit nooy yëre buus bu sell la woo xam ni kenn xamul dayo sëñ Tuubaa ni la yow kon murid bi bul sàggan la tastari dunya bi uxraa yaa fata man baa nuurum bi du java sa ne nee na képp koo xam ni kon yow xamal ni noo goon noo yi rek luy wàññi ko sa dund la noo googu ko daw si lu neex yàlla si siraatul mustaqim ba tax xadimu rasul ne ndaw yi nag li koy jox dëgër li koy jox wóoru dénkaane sëriñ Tuubaa bi Tuubaa dafa ni kun kaatiman li durri wal bu saatanal qasdan wa taalun diilu yaa mutaallimu laa tuksuru shakwa fakun mutajallidan xatta tazunnu naasa annaka munimu fal ilmu laa yutaa liman yaxsha tawan bal rabbana abdan saburan yulimu nee na na nga nekk di muñ na nga nekk di nëbb say métit ak say wansoo ndax kat sunu boroom kun kaatiman li durri wal busaatanal xataa tazunnu naasa annaka munim nee na na nga nekk di nëbb say lor ak say metit gore ba ku la gis defe yow ku nu xéewal nga laa tuksiru sakwa bul bareel sa jàmbat yow murit bu ndaw laa tuksiru sakwa bul bareel sa jàmbat ak say tawat na nga dëgërlu xataa tazunnu naasa annaka munimu dëgër dëgërul ba ku la xool sax dafa ne yow jeexaloo dara nee na na nga wattu sa borom si diine nee na woon a pettu ko nga xam ni ma ngaa téppax téppax yi ngir ragal coono suñ tubaab dafa ne cëy la mu am cëy la mu day loolee ci gàttal ni ko ki ki doon introduire waxe pour waxtaan wi gën neex man naa tënk waxtaan wi foofee foofu ngeen inscrire jël ci benn tàng fukki nit ñu laaj suñu laajee ñu tontu leen ñooñee laaj ñu tontu leen kenn bañ déplacé kenn pañ yàq euh, jotaay ba nga xam ni incha allah dég-dég bi ak lépp dana dana rafet ndax gëstu moo la ci asalaatu waaye nag toujours ci intervention bi ma def jëmee ku ci jeunesse bi dama bëgg am laaj bu ma ci laaj mu dolli ma ci xam-xam dama seet ni léegi mbirum diine rajo daf ci am doole maanaam lu ñuy wax publicité que la parole ou bien le journal te dama seet ni exemple yi ñuy jox yëpp surtout liy jëmee si rajo bi Cheikh Ahmad Bamba du ma dégg jox ci exemple. dañuy joxe exemple yu bare bare bare jële ko ci bitim réew dañu ñu dëkk koo ne am na Cheikh Ahmad Bamba wax li mu wax jàng ma nag waande maa ngi déglu ni moom waaye sax ñi nga xam dañuy xaar ci suñu diine mën na ñoo wax ñi nga xam ne ñoo dëkk ak ñun te doon ñu ñun doon ñi nga xam ne dañu ñu doon ñëpp

am nañu ne sax bi la joor yi moo tax ba ni ko tey laa toog man ma jox la lu gën li nga xam ne deqale am nañu ni génn na mbubbam summi na ci yaramam li may wax rek jàng moom dégg-dégg rek laa ci am bu dee jum naa wax ngeen baal ko am nañu ni summi na mbubbam solol ko ko avant muy dem am nañu uñeeku wan la joor mu nekk cedd moo xam ne naan man de xeex moo nekkoon euh, ki ci nekk bu dee am na ci xam-xam bu bay keneen ci yéen am na ci xam-xam ñu bind leen troisième point bi moo di affaire addiya laa bëgg a laajte fii ndax damaa jéggiwul depuis mille neuf cent soixante boo maa ngi tey jël jéggiwu naa am murit laa ay murit lañu waaw Mbacke doomu ab Sëriñ Abdou Mbacke borom dëgg waaw damaa seetlu ni man ci sama waa kër ñi ma yàgg diine ak ñi nga xam ne ànd naa ñoom ci diine bu ñu lay jox addiya ñooñu dañ ko jox ñooñu xam ne ñu jébbalu ci ñoom fii rek jox nañ ci ay addiya ma bëgg a laajte bu dee addiya ku xam diine maanaam ku jàng alxuraan bu la neex nga jox ko diine kii dafa jàng man dama ko conseillé comme un arabisant un islamisant mais xaw ma nag sëriñ lan de mais ndax li yoon addiya li ñu def laaj xam naa ne ndax yow na ko nag laa bëgg mu wax la ko moom. ndax ñu indi ak leeral ci yow ci Tuubaa ndaxte ñun jeune murid bi ñu yàlla defee ñu jéego ci Tuubaa ba léegi ci ak suñu xol suñu bëgg-bëgg la ñu gën bu màggal ba daañu màggal bu ñu tuddee suñu Tuubaa daañu daañu fagg daañu joxe at yi dara ci leen wax léegi waaw ñun nag buñ koy joxe ku ñu mën a wax ñu jox ko bu dee sëñ Touba duñu seet ndax kookee Mbàkke la sant wala Jaw la sant suñ Touba googee mu tudd mooy taw mooy seet ñu bañ jox ko ko fàtte nag ndax kookee yow na comme ci boobu moom tas sax waaye dafa nekk loo xam ne rek dafa tugg sama xel ma am leneen loo xam ne bëgg naa ko xasaay bi xam naa ko dinaa koy jàng waaye nag maanaam daal wér gu dama ko xamul bien boo ko xamee tamit xam-xam bi nga xam ne xam-xamu ràññee daal aw ma parce que damay dégg daal fu waay jugee yokk sa kurus naan wér gu tijaan ñeneen naan wér gu xaadir mais daal te wér gu mu daal tax du jiw. bi maanaam mel na nag dégg daal wér daal dafa nekk loo xam ne dafay góorgóorlu. perte nekk boo xam ne dañ koy concurrence fii Sénégal ba bëggoon naa ci Cheikh Abdoulaye Dièye mu leeral ñu fii bu fekkee Sëñ Tuubaa am na wérd boo xam ne am na ko mu wérd ñun ak wérd boobu naka la demee ak wérd boobu naka la demee ak yenn wérd yi ñu amoon fi amoon wasalaam. di nuyu mbokki taalibe di nuyu itam suñu mbokkum taalibe mi doon waxtaan léegi ci biir Sëñ Tuubaa di leeral it ni. waxtaan wi dañ ñëw te njëlbéen bi sëñ bu naa man dañu njariñ yiñ ciy sakk moo di waxtaan wi dafa jëm ci ñun ndaw ba sëriñ bi ne wali ha maasi ci fiiri jeex ba fi ñu tey wata naa war bàyyi ci bilaal fekk ma dañuy ñëpp danañ fax wut ci ma danaa gental sëriñ waaw waaye li ciy tegu nag mooy bu ko gent dañ fax wut si ko nañ jaar ci yoon la yoon woowu mooy li indi fii ñu jëriñoo tegu ci yoonu siraatal mustaqim kon dama bëggoon moom itam ci li mu waxtaan su dee def conclusion su mu jëttal waxtaan mu tënk ci lu gàtt di koy dalil yoo xam ne bu ñu jógee fii di ko jéem a sàkku mën a jëlee njëriñ ci waxtaan ndax Sëriñ Tuubaa nee na déglu waxtaanam waaye déglu bu ma ko doole euh, ginnaaw loolu it maa ngi leen leeral lii lépp fédération des section bi ko taxaw fii ñoo def lii jubluwuñ ci dara lu contact yi diggante fédération ak nit ñi bañ coupé da ngeen ma jéggal ci tubaab bañ itam kóllëre gi dox diggante taalibe ak waa dëkk ak taalibe morom moom bañ a am dara ci gàllankoor ci baatin bi ci am waaye xanaa ci euh, su ma jógee ci loolu nag lenn rek moo jaaxal ci waxtaan yi yëpp moo di Serigne Touba. ba mu ne kun fa yàkkoon suñu borom xëccal na ko teg ko ci dafa am ñaar yu ci sàkk aqiqatu ak sharia waaye ba léegi nga dégguma kenn ku ne nañu leeral mbiri seex mi tey ci biir waxtaan yi wax dëgg dégguma mbiri seex mi ndax bi mu waxee léegi nii yoon yi dafa am lu bari liñ ci wax wala ay nit ñu naan xale yi dañu leen téye boobu seen tubaab taxul ci siraat mustaqim déedéet waaye Cheikh Ibrahima ca biir moo tax ñuy gis nit jóg soli sagar bi tëggum nga naan laa ilaha di ñaar laaj addiya wala muy majaan nga tëdd ñu ñi kat booy bi nga gis ko muy tux koon gën a yàq kooku kon mbiri Cheikh Ibrahima moom la bu dingat dee ci loolu la ñuy digal loolu nag dama bëggoon ci fu xam-xamam solo ci wàllu mu dimbali ñu ci ci saa yi rek ba leeral ndax lu ci am solo ndax sëñ Mbacke Bousso Moustapha Lo barab bii ñuy wax Touba moo ëpp doole ci yàlla waaw fay tax dàkk nag ba lamp ba ñu tudd ko lamp Fall nag kooku it am na doole ci yàlla wala leer déedéet ñu ñëw leer ndax ci maa doole maam rek ci lu may gàtt ci lu may jeexal moo di dafa am jàngi yoo xam ni ci li ñuy jàng ci xase yi dafa am ay bay yooyu ñu boo ko dee jàng mën na wéccet njàpp bu fekkee dañu nekk nga ci posé boo xam ne njàpp da lay tële wala ay bëy yoo ko dee jàng mën na wéccax ndiku julli juróom ma daal yi laa soxla bi yaay njeex man xaar yi laa soxla bi yaay njeex ko dee jàng day yor nga njàpp ba toog waaw kulli bi ñu bi ñuy wax ni tam di leen kulli bi salaati suhri wal asri wal maxribi baxda suhri kulli yëpp yi la def asaawal fajri bi yaay bi muxtaar daal la di la ko bëgg a laaj ndax loolu itam teel bi bu koy saxal di ko dëggal soo amul jotu julli waaye jotu jëf nga yàlla waaw ceeb bi rek nee na julli mën naa yàq waaye jëf te yàlla foofu la yàq ndax nee